asalaamaaleykum bokki jullit ak bokki taalibe yi yéen ñi nekk biir Sénégal bitim réew di seetaan euh, sunu plateau spécial bi ñuy defee fii ci kër gu mag ci kër euh, Serigne Mor Mbaye Cissé euh, ku tudd nag sa xel nam ci alxuraan mais d'abord ñi ngi fi ñuy wax Jurbel Jurbel dafa nekk pôle boo xam ne ci en matière de politique administrative bu Sénégal ku ko tudd sa xel dana am ci lu mu dem sëñ Tuubaa bi mu jógee exil euh, maa yomba dañ ko yóbbu gànnaar transféré ko indi ko Thiéyène donc 1912 bi 1927 njaareem gii la ko toog muy fii ne muy pakk bi euh, am na benn commandant bu bu bu xarañ sax xarañ ndax. dañ ko indi Sénégal parce que dégg nañ ñu indi nu Sénégal euh, Sëñ Tuubaa njaaree mu tax ñu affecté ko ñu koy wax Arthur Antoine Laselve nekkoon na commandant njaareem diggante 1913 1915 waaye bi mu fiy ñëw pour mu régler murit yee taxoon parce que ñi dun ñëwee dafa met waaye Sëñ Tuubaa fu mu ne ñëpp fekkoon ko fa muy gànnaar di Gabon di njaareem giinu ne mujjun dañ koy résidence surveillée réservé nag place bii nu nekk la ndax kër sëñ moor gi nii kër gu mag gi nii waaye jumaa jaa ngi nii fii nu teg nag mooy ëtt alxuraan ji kër sëñ Mor Mbay Cissé waajuram sëriñ Ndiaye Cissé fii la ko sëñ bi déewuloon mu ubbi daar ji daar ji dégg naa defe naa entre douze et treize ci la sëñ Mor gane àdduna waaye bala maa sore damay jox kàddu koo xam ni ci waxtaan bi daan moo xam histoire njaarim tuuti ba lu ñuy dugg ci sëriñ Ndiaye Cissé ak sëñ moor mooy kan ak diggante ba alxuraan. Baye Mbaye yow laa jox kàddu gi. jërëjëf sëñ maajoor noonu nga ko wax rek noonu la ci yéen jolof fu lañ jëlee Serigne Touba weeru tam xarit la dëppoo ñaar fukki fan ak ñett di bésab gaaw waaye la jiitu loola benn labbe bu ñuy wax Moussa Antoine Marie dëkk Lyon ca France. di bu bari xam-xam moo wax ne sëriñ bi buñ fexee ci jëm ci moom ndax fexe jëm ci moom yàq say ngànnaay rek la ndax kenn mënulu ko dara ndax man sama xam-xam may na ma ma di ko topp ba juróom benni asamaan fala sam xam-xam a yem moom ma ngay jàll xaw ma fu mu ci kaw sama xam-xam may na ma ma topp ko ci suuf ba juróom benneeli suuf fala sama xam-xam a yem moom ma ngay dem fu yam ci kaw xaw ko fu mu ci suuf xaw ma ko jëmmi sëñ Bàmba kenn mënul ci moom dara nañu fexeel ak njabootam te bàyyi ko moom suñ fexeelut ak njabootam nag lu dul bàyyi ko mu topp réew yi di gor di tarbiya ay taalibeem dana mujj ni mu tëye ni la ay taalibeem di tëye duñ leen mënal dara ndax àgg nañ ci buñ dee jàng xasidaam yii mu bind wala ñuy waxtaan ci jëmmam ba jël leer yi ñëwal leen danañ def loo xay nit ku ko def faatu te ñoom suñ ko defee du leen wàññi dara ndax booba mu yi àgg nañ ci di sangoo ndox mu bax ak di ko naan di jaar ci siiñam sàkket di ca raw na leen neexe di yéeg ci garab ba ca kaw nga juutal sa bopp daanu si suuf jóg faxasu dara du la jot dellu gannaaw mel nem xar mbëkk ab tabax dara du la jot tibb sawara di ko seex di sàqami dañ ko doon def te dara du leen jot kon nag loolu leer yi muy def ci ñoom ñoo ko war a tax léegi dañ ko yóbbu ci dëkkab taax ko yóbboo ci dëkkab taax marché am fa góor ñi jigéen ñi jaxasoo leer yi muy def ci ñoom di wàññiku nañ ko def noonu loola moo doon seen pexe ngir bëgg a yoonu murit <coughs> moo taxoon ñu indi sëñ Tuubaa njaarim muy jurbel waaye fekk na loolu day seen xalaat fekk na sëñ Tuubaa moom waxoon naa ak jurbel ne ko danaa ñëw fi yow ndax bañ ko yóbbu gànnaar bu njëkk mooy yoonu sëñ Tuubaa bu njëkk wowu njaarim bañ ko yóbbu gànnaar dañoo jaar moom jurbel gii fanaan feek moom guddik dibéer guddi googee xam nga ci la delluwaat daru ma naan jiñ giñ jiñoon sëñ ni wut na ay ngànnaay ngir dafa bëgg a xeex ci la mbaaxaan delluwaat daaru ma ci guddi googu dem daaru ma ba xeejam ba yoroon la jam ci genn gaal gaal googa bagage ya nekkoon foofa Cheikh Moudou Sall Karim moo ko jël toxal ko yóbbu ko bayti <coughs> waaye barab yëpp ña nga woon foofa daaru ma guddi kooku nag sëñ Tuubaa ñu jël ko tëj ko ci fu ñuy wax bureeb société dégg ngeen sëñ Moussa Ka di wax naan <coughs> ñu jël ko tëj ko ci bureeb société mbaaxaan di wax ne bu ko kenn seeti bañ ko fi jëlee nag di ko yóbbu gànnaar guddi gañ ko fi jëlee la suufas njaareem jooy ci baatin wax ak Serigne Touba ne ko damaa defoon ne dangaa ñëw ngir defar ma waaye xaw ma woon ne danga fiy jaar dem Serigne Touba teg ko loxo ne ko muñal maa ngi dem maa ngi dellu si suñu àggee ci la di 1912 danaa dellu si waat ci yow su ma amee ci yow juróom-ñeenti at danaa la def ngay dinaa moo leer loo xitaab bi xaamatal sa sin la daa buqaati li tii tunirul bala daa kon dinaa moo leer fii ko sëñ Tuubaa def ay fii fi jóge dem feneen fu leer fu ne ay fii la fa àgg waaye dinaa moo bi mu ngi njaarim kon ñoom xamuñu woon baatin bi tax sëñ Tuubaa dellu si waat njaarim fekk na sëñ bi waxoon na ko suufas njaarim ba noppi te moom li mu wax dana ko def kon nag gaaw boobu di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tamxarit dëppoo ak fukki fan ak ñett ci janvier 1912 gaaw boobu lañ jëlee sëñ Touba ci yeen jolof di ko andi njaareem mu yendu beltes ki <coughs> fanaan si lu mel kër fari kewe xëy fa dibeer ji yendu si kat dëballoo ji gonte fa julli timis diggante daarul mannaan ak Touba fanaan si daaru alimil xabir muy ndaam kër sëñ ndaam Abdourahmane Lo ba mu fa jullee suba nag bàyyi fa lu bàyyi ci njaboot gi moo tax ñu bari ci njaboot gi fa lañ feene jamono mu daal di fay xëyee yendu si ndulo kër Modou Sow chef ba ñu ngi fay tabax jumaa ci fii ci ndulo julli fa tisbaar ak takkusaan gonte fa fanaan si njaarim di fukki fan ak juróom di bésu altine ci weeru janvier 1912 waaye di ñaar fukki fan ak juróom eh, ci tamxarit Euh, ci atum lësasin booba la sëñ Tuubaa wax ñoom ñaari bayitam yu siiw yooyu muy raamoo ma siiri ilaa njurbel la daal lësasi law aayonoo shirra maa fii sayri ma raamoo fa sayru mawtun ala man naa soo waasan waanoo lee ibqaa un wa igraamu sëñ Tuubaa ne leen yéen a ngi sàkku sama dox jëm njurbel waaye su ngeen xamoon yéen ñi koy sàkku lim leen di jural du ngeen ko sàkku ndax yéen dee lay doon ci yéen ak lor te man njaareem laay des te tedd nga laa fiy dese du ma fi jóge loolu la wax muy ñaari bayit yooyu ñu andi njaareem yóbbu ko kër commandant bu ndaw ba mu nekk fa nag euh, ba am fa fukki weer ak yet weeru yenteel wa nag di weeru gàmmu la sanc si fii di kër gu mag tudde ko Buqatul Mubaraka muy 1913 euh, 1913 la sanc fii ci at moom nga xam ne ci la Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma gane àddina yàlla dogal mu sàkku ndimbal mu sàkku ndigal nag ci maam Ndiass Cissé bàyyi sëñ Mor Mbaye Cissé mi waral suñu jotaay bii mu andi njaareem jële ko aafe njooñik ca wetu Kébémer toxal si ko andi ko njaareem euh, jox ndigal rakkam jamono yooyu moo yor dëkk bi di sëñ Balla Coro booba sëñ Balla Coro mooy chef de quartier bii moom la sëñ Tuubaa jox dëkk bi mu rëddal kër gii maam Ndiass Cissé ci 1913 ñu andi fi sëñ Tuubaa andi fi way juru sëñ Mor Mbaye Cissé di soxna Marema Gajaga mu nekk fii ci déwén sa di 1914 sëñ Mor Mbaye Cissé gane àddina ci kër gii di kër baayam fi la feeñe jamono 1914 mu dëppoog Balsasine di ñaari ati njaarim euh, mu nekk fii nag ci kër baayam feeñ fi jamono baayam di maam Ndiassé doonoon waliyu kaamil waaye di murid saadix di xaalim di habit di hafis waaye di murid saadix bi matee dal jàng moom sëñ Mor bàyyee ma ko jàngal alxuraan fii ba mu mokkal ba mu mën alxuraan ba bind kaamil kaamil bi mu ko bindee kaamil bi maam Ndiass da koo jël yóbbu ko daara yi kaamil yi sëñ sëñ Touba ji nga xay mag ñi sëñ bi wóolu ñëpp booba ñoo fi nekk yor daara ji mu jox leen kaamil bi ne leen kaamil bi de moor Mbay moo ko bind sama doom seet leen ko ba xam waaye génn ci aw aw aw yàq de kuttu mbëtt la. kuttu mbëtt nag mag ñi nee nañ wewu dee wewu dam mu xaj na ca waaw saayir baatin ba dellu siwaat na ndax sëñ Abdou Lahad moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi mi señ Mor tuddee sëñ Abdou Lahad Cissé mii moomam mii bi mu doonee xalifab Sëriñ Tuubaa daari kaamil jii ci njaareem da leen a bindloo ab da leen a bindloo ab kaamilu alxuraan ñoom ñu seddoo kaamil ñu bindi ko bi mu àggee mu ne leen kaamil bi waa daara yi eh, eh, njaareem ji bind ñëpp nañ ko yót sëñ Mor Mbay Cissé mu topp ko booba najaayam ci la bokkoon najaayi sëñ Mor di sëñ Aliou gajaga booba moo jiite daara kaamil jàngal na sëñ Mor sax aslëf booba moo jiite daara ji waaye mu ne leen nag kaamil bu ba àggee yót leen ko sëñ moor moo koy topp sëñ Mor kenn ku ne mboolem daari kaamil ñaar fukki nit ñi ak juróom-ñett kenn ku ne daa wut beneen kayit lay say yàq ca la nga bind mu bind ko ca ku ne say say say yàq bokkul ak tey loolu lu ma fekke la duñ may duñ luñ may nettali lu ma teewee la. waaw duluñ luñ may nettali lu ma teebale kenn ku ne la ko tàmbalee ci najaayam ba mbaanam daari kamil kenn ku ne sa yàq da koo ber ci aw kayit bind ko ca ba mu àgg ca lay sëb jukki waaw kon mu mel ne euh, la la la maam Ndiasse waxoon ne leen sama doom ji moo bind kaamil bi te génne ci yàq ku tumbati la loola sëñ Abdoulaye si sëñ Abdoulaye Xat moom sëñ tubaa feeñalaat na ko ci bind loo daari kaamil ji bi muy sëñ Touba te bañ kaamil bañ bind sëñ Mor a topp te kenn ku ne génneel na la ay yàq ci la bind. noonu la mel nekk fi man alxuraan lool waaye jàng xam-xam ci sëñ mat dem sëñ mat dem a ko jàngal xam-xam ba tafsiral ko alxuraan ba tafsiral ko alxuraan yëkkati doomam soxna Aminta dem way juru sëñ Abdou Lahad mi it jox ko ko waaw moom la jëkk a dëkkoo waaw gannaaw gi la fi soxna Marème ñëw Marème Ndiaye way juru soxna Pend mii doon wax waaw way juru sëñ Abdou Lahad Cissé ñëw fi waaw way juru soxna Ami Cissé mi ñëw noonu lañ def kenn ku ci nekk ba ngay ñëw say kilifa yi ñoo la jël andi la jox la sëñ Mor Mbaye Cissé ci saayir ak ci baatin waaw ñu nekk fi nag nekk yéen woo wañ war a nekkee ak nit ku baax ñu nekk ko ak sëñ Mor sëñ moor nekk fi yor daara ji ci kanam mbaayam Maam Ndiassé Cissé ndax Maam Ndiassé euh, mi ngi dem 1942 46 kon safurlaa 46 la maam Ndiassé génn àddina 46 boobu man juróom-benni at laa amagun ci àddina maa ngi ci juróom-ñett fukki at ak ñaar fii mu toll. te sëñ moor moo ma dalal alxuraan sëñ moor moo ma dugal néegab góor yàgg naa fii ci daara ji di te ak sëñ Mor te booba mëtaguma dal jàng duggaguma néegab góor lépp sëñ Mor ma ko defal. moo tax ni may waxee ci bésam bi ma di ko wax man bésam mooy sama bés aw ma beneen bés ci saayir aw ma ko ci baati waaw. moom rek laa am awma leneen waaw lu ma am moo tax ku ma xam moo tax lu nekk ci man moo ko ci def du keneen kon moom rek mu nekk fi nag di liggéeyal yàlla ci saayir ak ci baatin waaye di taxaw doomu aadama yëpp amul murit amul xaadir amul tiijaan ba ci catholique yi catholique yi am na benn bis ñuy def fii ci seen kër catholique gii ci labbe bi ñu am kuñ fiy fal <coughs> kilifa ga ca ndakaaru taal otoom ñëw ba ci buntu kër sëñ Mor. mu wàcc ñëw jox sëñ Mor kër kayitu invitation ne ko bés ba moom da ngaa bëgg nga ñëw fekke si li ñuy def ba bés ba jotee man mii la sëñ Mor yebal man la jox carte wa bañ ñu jël see man mii maa dem ba ma demee nii nu toogee lan toog maa toog ci digg bi. préfet gouverneur toog ci sama ndeyjoor préfet sama càmmooñ ñetti fauteuil lañ ñu defal maa toog bi ci digg bi ñoom làbbe yi ñuy def seen way yeeg fecc yeeg yooyu di ñëw gouverneur di ma ne ma waaw sëñ bi nun lu nuy wax ma ne ko nan sax ci leexlaas nun nanu jàng xul wallahu ahad allahu samad lam yëlit walam yoolad walam yakun loo ko far ahad sëñ Mor ñëpp la jotee loon ñëpp la daan dimbale ndax moom yàlla rek lay xool ci nit ki xoolu ci leneen yàlla lay xool ci nit ki ndax yàlla dafay mel ne ñi ko weddi sax la gën a dimbale ci ñeneen ñi ci des sëñ moor nag foofu la nekkoon ñëpp la daan dimbale ñëpp la daan taxaw ci saayir ak ci baatin da daan wax naan fii bu bu yeewoo sëñ Mor dana tari ñeen fukki mat la bu sifaay tari ñeent fukki yaasin xam nga loolu kenn mësu koo dégg ci àddina ñeent fukki yaasin sëñ Mor dana ko tari tari ñeent fukki mad bu sifayin <coughs> ne suñ borom maa ngi lay ñaan képp koo xam ne mi ngi may dégg bëgg maa gis te mësumaa gis fajal aajoom lu ragal na ko ci musal te lu mu bëgg itam na ko ci dimbale ku ma a jox ab dërëm wala lu ko jar wala mu yéene ma ko musal ko ci lépp lu ragal te lu mu bëgg na ko ci dimbale ci la tàmbali di ñaan. réew mi mu ñaanal leen <coughs> ñaanal dëkk yëpp ba ci réewi tubaab yi na ma ko waxee woon ca appel ba di ñaan ba ci réewi tubaab yi bay tudd na soosi ni ba bés ma ne ko man di sëñ bi tubaab yi ngay ñaanal jaaxal na ma lool moom jaaxal na ma mu ne ma ah, dangay gone rek xanaa xamoo ne ñoom buñ xëyee yëndoowuñu jàmm duñ fanaanoo jàmm waaw loolu moo tax kon moom ku doon dimbali ñëpp la moo tax bésam bésam ñépp la ñëpp la joteel li euh, nga wax ca ca ca ca appel ba. sëñ Mor fii kenn mës la jóg jëm Touba te jaaroo fii. du kenn nag du ab président waxuma keneen waaw sengoor bi muy wut réewum Sénégal fii la ñëw ci sama kanam la du luñ may nettali booba Senghor député la di wut nag réewum Sénégal booba député Sénégal la. mu ñëw fii ci daara jii sol. tubay joo xam ne fii la yem ci wóom bi muy këkki mbub mi këkki la mbaxana mi mu sol këkki la muy ab felt ba muy ñëw mi ngi ànd ak sii Sidi Gissé keroog sëñ Mor daf ne ma gan ku ko am da nga koy ganale cigarette sax demal jëndi ko andi. waaw goroosu cigarette laa dem marché jënd ko andi wallahi la asim waaw barkeb sëñ Mor bay Cissé mu ne gan ku ko am da koy ganale la malal malal taabal ji teg ko ci Baye Mbaye gumba la. Baye Mbaye gumba la moo xotti goroosu cigarette ba. paquet ba moo ko xotti ku ne mu jox la benn ak si ci Senghor dindi ñaari paquet di ko jox mu ne ku dee jox ma benn rek yemale ma ak nit ñi sëñ Mor dama Senghor kat nee nañ du tux sax waaye nag gan moom ku ko am ganale ko rek cigarette sax ko andi kon fii ku ne ñëw nga fi sëñ Mor daana wax naan man ku ñëwul fi man it sab sëriñ ñëw na fi man sa buur ñëw fi man fii ku fi ñëwut sab sëriñ ñëw na fa sa buur ñëw fi waaw amul benn président bu fi mës a ñëw fii amul benn sëriñ boo xam ne euh, kilifa la goo xam ne mës naa ñàkk ñëw fii sëñ Abdou Assis daawu fi jóg am na bés boo xam ne ba muy dem Touba ci sëñ Abdou Lahad ci jamono yi sëñ Abdou Lahad la mu yónnee ci sëñ Mor ne ko fi laay jaar si sëñ Mor woo ma mu ñëw mu ne ma ca tëli ba ngay yendu gàttandu sëñ Abdou Assis bi ma xëyee bañ kii ma daal dem fii teen bi nekk fii teen bi ma daal di toog foofu yendu fi bañ julli tisbaar ba tisbaar ji jàll sëñ Abdou Assis door a agsi nit ñi daan kër kër kër kër kër kër kër sëñ Mor ne ana mbay ana mbay ma ne mbàkke ma tuug waay ne la bayka moom tàmbali naa ganale waaw mu ne ma tuug waay ne labbayka ma ne ko ah labbayka boog siise xanaa ñàkk miin rek mu ne ma jiitu yóbbul sëñ bi dalal ko ma yóbbu ba dalal ko ci néeg sëñ Abdou laat bi ma daan dalal sëñ Abdou Lahad waaw ba toog mu ñëw sëñ Mor ne ko sëñ bi toog na mu daal di ñëw dal di sukk nii ma sukkee jox sëñ Abdou Assis loxoom sëñ Abdou Assis tëye loxoom ne ko yaar de leen na ciy am nga ñëw fekk si ba ci laal bi nu bokk toog. wala man ma fekk si le ci suuf nu bokk toog waaye doo toog fii ma toog fii sëñ Mor ne ko mooy ñaar yooyu lenn du ci am ndax lal bii nga toog sëñ Abdou Lahad su fi ñëwee fi lay toog te fii laay toog te man xamee wu ma ko sëñ Abdou Lahad xamee wu ma sëñ Basiiru ak sëñ Mansour xamee wu ma sëñ Cheikh Tidiane si ak sëriñ Cheikh Mbacké ba ñu waxtaanee ba muy dem sëñ Mor ne ko maa la waroon a gunge war a ànd ak yow ba nga dem Touba ba dox la ngay dox ba ànd ba wàññi ko dellu si waaye da ngeen maa tëj kaso da ngeen maa tëj kaso moo tax waaye mbay ngiraan mii laa lay boole moom fu mu teew rek sama jëmm teew na fa. keroog ñu ma ànd ak sëñ Abdou Assis dugg ci seeni wata bañ àgg bañ àggale sëñ Abdou Assis nuyoo sëñ Abdou laa ay bëyit bokk na ci mi ngi tàmbali ci mini ilab ni haari fi sani yi xadimi saafi il waral mbëkk yi najli abi bilahi habdil ahadi waarisi siril ali fi suudadi ataala xumrawul asisul baaxi lil xaxli xalqi yahdihim ilal xalaaqi musayidan arkaana xaasa diini bi jaay saafi wala saafil waral amini aska salaamin min muhibbin fani fi ibbikum di baril akwaana ataaka zairan li waj ilahi mujaddidan xoxoodakum lilahi ba ñuy gont mu dellu ne ko maxiiluna hinda tuubal yowmi ixwaani hissun wahiidun lana min xayri buxtaani wa nasal allaha rabbi an yutiila baqa ana tawilan ala asaabi ihsaani bi jaay ahmada xayr xal ajmayim safiina al mujtaba biha min xayri ajnaani kooku mooy sëriñ Abdou Assis si yal na yàlla fayal nu ko noonu la meloon bi keroog bi sëñ Mor delloo ci boroomam moo jëkk fii waxtaan wi mu fi def def nañ ko ay kaset bu bisam tey jii muy waxtaan woo xam ne wenn waxtaan la te noonu sëñ moor ni la demee woon ak mboolem kilifa yi diine yi lislaam yi ci Sénégal yëpp noonu la demee woon nit ñëpp itam ndax wax naa labbe yi sax noonu la demee woon ñoom moom fii ku ne ñëw na fi ku ne ñëw na fi waaye ku fi ñëw rek mu teral la moom nag ni wut kenn salaamaaleykum te kenn ku ne nee nga ko salaamaaleykum mës la laaj kenn dara mës la sas kenn dara waaw nit gaare na oto fii jëndal sëñ Mor ab oto ñëw fab kayit yeeg lépp ñëw jox sëñ moor ni ko oto bii maa ko wutal sëñ moor nangu ko caabi jaag wat kayit yaag lépp teg ci wetam di waxtaan moom di ko defaral ay ñaan. ba mu àgg maa ngi jégalu maa xaw a soj ba mu àgg mu jël ñaan yi jox ko wax ko ni mu koy def yëpp ba mu tàllal loxoom mu ñaan moo ci des mu yëkkatiwaat caabi oto bi ak kayit yëpp léegi na ko wata bi mayaat naa la ko ndax man dimuma fenn ki soxla wata mooy kuy dem fenn man nag dimuma fenn. woto bi soo ko fi bàyyee benn ma may ko euh, euh, sama xarit wala ma jox ko sama sëriñ addiya sëriñ bu ma koy jox addiya nag wala xarit bu ma koy may lu ma leen ko yéene yéene yow mi ko liggéeyoon ba am ko yow laa ko yéene yow laa ko gën a yéene. kon am nga tuyaaba yi joxe wata ba noppi wata bi joxaat naa la ko addiya ndax loolu mas ngaa gis benn sëriñ bu ñu jox wata mu delloo ko ko ko joxoon foo ko gis ku dul sëñ Mor Mbaye Cissé wax ma ko da koy jox xaalis mu wàññi ko lii doy na li ci des mu ne la téye ko. wala nga ñëw nuyoo siyaare ba noppi jox ko se muy waxtaan ak yow di waxtaan ak ba nga làmbaat dara mu ne la dencal waxtaan wi moo neex rek mu génne loolu te amoo ma man rek danga am ñeneen ñoom la jox kooku kenn la koo natt ci moom mu des. <laughs> maa la wax lii man mbay koo natt ci moom rek mu des ni muy doxe benn kenn kenn kilifa gune yi doxe ci jamono amut koo natt ci moom mu des waaw. Eh, jërëjëf sëriñ Mbaye Nguirane tubarkalla am na loo xam ne bëggoon nañ koo xam tey lañ ko xam. ndax sëñ Mor du jeex ñu ko jege woon dëgg jege njabootam xam na ne sëñ Mor euh, monument la woon ci wàllu alxuraan ba ci ak ci xam-xam. wax nga relation yamoon ak àddina bépp catholique tiijaan laayeen fépp man ma naa ñëw fi booba euh, euh, fat maa ngi koy fàttaliku mas naa toll ci man naa toll ci sama benn xarit bu dëkkoon fii laa fa àndal tudd Déthié Sow doon liggéey poste man ma kaa ñu nuyu ji maam mooy mbër donc ma li ma jëkk a euh, euh, bi muy dugg see ci salle bi mooy photo yi parce que dafa am benn leader boo xam dama ko faawoon ci wàllu football muy Pelé ki dàqoon football ci àdduna bi brésilien. ma gis ko mu sol maillot bu jaune bi ak sort seen sort seen maillot boobu jël bal bi parce que Brésil kenn ku ne xam ne moo jël coupe du monde en 1970 ma di ko xool rek tourné gis général de Gaulle ñu bind ci appel du 18 juin tourné gis Kennedy. ma xam ni fii am na lu fi ne parce que mu ràññeewul jigéen euh, euh, maanaam catholique akub yéefeer akub jullit. doomu aadama rek daal da koo ñoroon bi ko waa ji laajee bi ko bi sama xarit bi laajee ne ko waaw mais mais maam yi nga taf fii ñii ay mu ni ñii seen passif kenn ko def la fa nga féetee moom a ñoroon moo tax. ah. doon. champion waaw. waaw nee na ràññeek bu ñu bi seen liggéey ak pas-pas ba nee na ci loolu lay xool ñoom loolu dañ koy soñ ñoom. waaye kenn du sëñ Mor Mbaye waaye Serigne Cheikh en tant qu'enseignant de vingt ans quelque njaaram fi nga juddoo sax waaye génn nga waaye bi nga génnee yàggul jaxasoo nga ak njaboot sëñ Mor Mbaye Cissé. Euh, intellectuel nga jàng tubaab jàngal nga léegi fii Cheikh Ahmadou Bamba ci lycée bi ak yeneen yoo xam ni tubaarkaal def nga ko ci réew mi un témoignage de cinq minutes ci sëñ Mor Mbaye Cissé rek ak njabootam moo soog a réalisation yi xam ne am na fi après. ok jërëjëf sëñ bi maa ngi lay sant bu baax di la gërëm waaw di la xamal ne def témoignage ci sëñ Mor Mbaye Cissé ginnaaw bu bàyyi Mbaye Ngiraan waxee ba noppi lu jafe la ndax témoignage bi ñu soxla woon yaakaar naa ne moom def na ko. ci saayir ak ci baatin su ma dégloo yoo xam sax dama naan man weddam naa xamatuma lan laa war a wax xanaa ma jéem a barkeelu rek indi ay fàttaliku yoo xam ne yi dund naa ko ak sëñ Mor ak njabootam gi yoo xam ne dina firndeel li bàyyi mbay ngiraan doon wax léegi ma njëkke fi nga mujje léegi bi ma ràññee ku nga xam ne maa ngi war a toll ci ñaar fukki at jëm ñaar fukki ak benn danaa ñëw fii fekk fi sëñ Mor boobu bureau la amoon ci néeg bii ma gis photo yooyu nga wax léegi nga xam ne dañ ci ràññee ay njiiti réew ay footballeur yaakaar naa sax man gisoon naa ci tubaab boo xam ne bi paab la woon ca Rome Jean Paul xaw ma Paul six xaw ma Jean Paul deux waaw mais ràññewaan ci paab boo xam moo jiite woon église catholique romaine kon loolu day dëggal li sëñ Mbay wax léegi ne sëñ Moroom ñëpp loolu sëñ Moroom àdduna la te dama yaakaar ne yéen jàng alxa jàngkati alxuraan li ngeen di wax naan yàlla dafa tagg doomu aadama ne ko wala xadd karam naa ba bànni aadama moom foofu lay xool nit ku mu gis daata muy xool fa nga bokk ban waaso nga bokk ak ban diine nga bokk day xam ne kii kat doomu aadama la te yàlla dafa fonk doomu aadama sëñ Mor fonk la foto yooyu nga laaj naa ko ko fekk la tax ma am fitu laaj ko ko dama ñëw jóge lycée di sama waajur yónni ma fi ma ñëw ñu ne excel ma fekk maa ngi soloon ay dàll yu xewoon ci jamono yooyu ñu koy wax tête de nègre mm-hmm. ma ma laase ko nag mu dëgër këcc maa ngi sol pantalon jiin ñimewu maa dugg ak samay dàll ma koy may dindi laase yi mu ne ma déedéem fett sama duggul seen moom ma wax mu ne ma da ngay dugg seeg dàll yi ma ñëw mu yëkkati chaise jox ma ma ne ko sëñ ma ñemewu maa toog ci kaw chaise mu ne ma déedéet chaise bii bi ma ko fiy def doomu aadama yi di ci toog moo tax bu dee ku ñëw teggi ko kon chaise bi lan lay jariñati ma ne ko waa man de photo yii ma fi gis dama da ca bare tubaab te man waaye bi ma ci gën a yem mooy catholique bu mag bii moo ma ci jaaxal donte lii war nañoo war maalante ñoom sax waaye nag di yegg ci fa seeni photo nag di wekk ci sëb néeg loolu daal man xajut ci sama bopp mu ne ma comme ni nga wax léegi rek dangay ngay gone wante làmp bii lay niital mu ne mu ne ma ak tabax bii ni ñu ko tabax ciment bi ak fer ba ca dem ak boroom xam-xam bi xam ne nii lañ ko war a jaar lii lañ war a jiital ña ko def ndax ay jullit lañ man nga yaakaar naa ne ñëpp ñoom de du ñu ay jullit mu ne ñooñ ndax boo leen wan ne ginnaaw doo tumuraanke ci Hmm. man man man maa kay man ma frigidaire bi ngay sarale ndox nag ñi ko defar ci ban diine lañ bokk wax ma ba keroog damaa jommi bokk na ci lu ma dund ak moom ngam ne loolu moom sama vie personnelle la. Hmm. bi may nekk niveau lycée. ba maa ngi école normale William Ponty bu cees at mi ma war a defe baccalauréat feebaru bët dal ma feebar ba bàyyiwuma ba nga xam ne di nee nañ juróom-ñaari fan moo dox suñu diggante ak examen bi te yeggoon naa ci bu ganaar jaaree ak ak i cuujam du du ma gis ganaar gi du ma gis cuuj yi kokk kokk yi rek laay dégg sama waajuru jigéen jaaxle lool ñëw wàcc ma ci kër ga jël jël taxi bi taxi bi toll fii dafa yàkkamti ba laata taxi bi freiné soxna si dafa cëppeelu daal di fa kastalu daanu dañ ko yëkkatee benn koy sëñ moo sëñ moo ne ko bul defati loolu kër gi boo ñëwee boo ma fekkutit li nga soxla fas ko tibb ci suuf si ñaan ci dem faj ci loo bëgg a faj daal di koy jox ay ñaan ne ma boo demee na koy sëlmoo bi ma demee ñaari fan laa ci sëlmu bër yi commencé di leer laata ñuy yegg ci examen bi am naa tanuk mën a dem def examen bi te ba ma demee it dama dama am premier tour laa ko am admis d'office avec mention bokk na it ci li ma daan dénk te dama daana ko faral di fàttali sama élèves yi mooy dama daan ñëw ne ko sëñ bi de man damay waajal examen dama bëgg nga ñaanal ma te at mi at mi laa bëgg li ma bëgg nag laa lay wax. Ah. waxuma ñaanu ñaan kii rek ma da nga ñaan ba war ne ma dangay ngay at mi loolu laa bëgg. mu ree daal di may jox ci téere yi wax ma ni ma koy def mais su ma demee bay génn bunt moom fi tasu ma dama kaay ma ñëw ma ne man mbaa xam nga ne sama téere du jàng leçon ma ne ko luy loolu mu ne ma boo demee da ngay jàng say leçon ba mu mokk góorgóorlu ci la nga ci man yëpp nga def ko soog yaakaar téere bi. loolu ma jële woon ci euh, leçon de vie boo xam ne bii ba léegi mi ngi des ci man ma koy dox ñëpp ñi nga xam ne ñun ay jàngkat lañu di jaar ci man euh, sëñ Mor dafa fooye foloon boppam ba gone gu sax mën na koo yendal man maa ngi fàttaliku daana ñëw fii ne waxtaanu sëñ Mor daf maa neex su ma ñëwee toog lu mu xat xat xat dina ma toogal fee bu gan gu am maanaa ñëw bu waxtaanee mu pare dina ko ma continuer di waxtaan ak man léeg-léeg danaa fi nekk ba ba ba xale laa du ma xam ne kii amul jot. damay toog rek ci teggiin ya mooy jékkee fi defi pexe ba wala man ma gëmyantu di dajant mu soog ma may xaalis ne ma demal ñibbi. kon loolu kooku baax la yàlla yàlla yokk leeram ah, kër gi yàlla na ko yàlla dolli barke ah ñi ko fi wuutu. yàlla nañ fi liggéey loo xam ne lii bu fi nekkoon du ko man ci lu baax ci lu jëm kanam yàlla na yàlla téel leen seenu taalibe yokk seen xam-xam alxuraan te barkeel ko képp ku fi jàng yàlla na yàlla barkeel sam njàng ah, yàlla na yàlla def sutura yàlla na yàlla def sëñ Tuubaa nangul ñu sunu taalibe ñun ñëpp. ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall. Eh, jërëjëf Serigne ci témoignage bi am solo boobu nga def ndax lee tax ñu nu fàttaliku nitu yàlla yi dana solo jàngalaat nañu àdduna xam nañu war a demee ak sunuy nawle ñi nga xam ne bokk bokkunu diine waaye ñii ak ñi war a seqal adduna mais euh, Serigne Mor man je euh, dama dama xaw a li tubaab di wax ému ba ñëw fekk mu foon lii mu fu ñëw te fii daara la te xam naa ne amu leen subvention benn état ma bëgg xam fonctionnement daara ji à travers. ci ci fii lii fu mu jógee parce que visé naa ba ci kaw xam naa ne buñ fàlli si dana ko jël boole ko ci euh, ci ci ci film bi mais gis naa ñi ngi tegaat yeneen i barab ca kaw ngir yaatal parce que lii fekk ma foon ma bëgg xam ne lii nan lay doxee parce que sëñ bi du ko wax ku ma leew mën naa koo laaj. jërëjëf sëñ Ibra ngi lay sant bu baax euh, laaj nga question bu am solo mooy lii muy mbaar mii nga xam ne boo ko xoolee ëpp na sax terrain ëpp na kër ak nii nu ko liggéeyee ak liñ teg ci kaw loolu nag jàmbaar ji yi nga xam ne moo bokk ak ñun jataay bi nekk xalifab sëñ Mor te doonu turandoom ci yu bari te mooy Cheikh moo amal liggéey bii euh, ni nga ko waxee amuñu benn euh, ndimbal loo xam ne it état warlu nañu ko loo xam ne dana bàyyi ci ñoom waaye nag moom ginnaaw bi nga xamante ni magam ju baax ja sëriñ Bachirou Cissé moom sëñ Mor mi ko njëkkoon a wuutu nekk fi bi fi bàyyi ko ba mu toog jataayu sëñ Mor mu gis ne liggéey bi fii sëriñ Bachirou tàmbali woon na fi ab liggéey te mbaar mii ci la bokk fii nu toog tey sëñ Mourtala moo teg si woon xeer wi eh, foofu sax danaa fi taxaw tuuti ndax bis bi ren sëñ Mour sëñ moom lañ ko tuddee Cheikh Mouhamadoul lañ ko tuddee Euh, defe naa baay mbay léegi bi muy daaneel kàddoom mi ngi wax keroog sëñ bi mu ñëwee ci ñaan ki keroog moog sëñ sëñ Mourala ñoo fi bokk daje. Euh, nga xam ne kon ginnaaw bi sëñ Mor demee it sëñ murlaa di doxal kóllëre googu ba bi sëñ sëñ Bas di euh, war a liggéey mbaar mii nu ne. bi mu demee wax ko sëñ Mourala sëñ Mourala da ne ko du ma fa yable loola may ñëwal sama bopp may tegal sama bopp xeer wi sëñ Mourala moo teg si woon xeer wii mbaar mii ñu nekk tey euh, sëriñ Bachirou liggéeyoon ko bañ tàmbali fee nekk di fi di di fi jàng ci biir waaye biñ seetee ne dal yu njëkk yi tàmbali woon na di soppeeku ñu xalaat ne kon faaw day laajaat defaraat sëñ Blaat nag ne man du ma du ma damay defaat fondation waaye du woote tegu xeer itam ndax sëñ Bas tegoon na xeer wa la sëñ sëñ sëñ laa ñaanoon mënuñoo am ñaan ko ëpp. waaye nag danaa defaat beneen plan yëkkatiwaat ko loolu mooy mbaar mii nga ngay laaj. mu liggéey ko nii mu ko liggéeyee euh, daara ji ak njabootu sëñ gépp ànd kook moom nag jàppale ko ci mu liggéey ko ba mu àgg xam nga ne daaw bi ñuy def bis bi ci la mbaar mi àgg. Euh, du ma toog ci jataay bi temps bi duma may may lim ñi nga xam ne feeñ nañ ci jëf ji ndax ñi ci jëf ñëpp moom xam na leen ñoom xam nañ ko te alxuraan ak sëñ moo rek taxoon ñu koy liggéey ndax barab bii sëñ Issa Diène dégg naa ci sëñ Abdou Cissé ne sëñ Issa ñëw na fii di wër ci biir kër gi ba yàgg mu ne alxuraan di fii lay mujj sëñ Issa Diène waaw. alxuraan fii lay mujj mën naa am sax du doon toog di fi jàngale waaye ñi am xool alxuraan wala ñi xam alxuraan di ko jàngale ñëpp boo leen xoolee ay produits sëñ Mor Mbaye Sèye lay doon moo tax mu waxoon sëñ Issa woon alxuraan fii lay mujj. Baye Mbaye mi ma wax xam na barab bii bu baax xam na ni sëñ Tawa fii la daan toog di jàngale sëñ Malick fii la newoon di jàngale ci biir mbaar mi mu doon suuf soo xam ne ni ko Baye Mbaye waxee 1913 bi sëñ Balla Coro rëddee kër gi ñu tàmbali fee jàng alxuraan ba léegi amul benn bëccëg boo xam ne ay ndaw ay génération génération ñi ngi fiy wattu alxuraan ba ci kii fi nekk di sëñ Muntaxa ak ay magam sëñ Moussa Bachir ak ña ko mag ci biir kër sëñ Bachiru sëñ Bachiru njabootam sëñ Mor la leen daan jox. waaw boo demee tey li ëpp ci xalifa yi yoonu murid yi fii lañ génne. waaw kon nag daara jooju miritoo na lenn lu ci ne sëñ Blaat nag nekkoon mbaar mi biñ ko liggéeyee ba noppi te amuti néeg ndax ñetti néeg ñoo fi nekk ci biir mbaar mi li muy yaatu lépp ndax euh, da koo waajal rek mu doon jàngukaay mu ne néeg yi nag ak dalukaay yi ci kaw la ko fa séenee def euh, daal di yëkkatiwaat ci kaw bi mu yëkkatee ci kaw itam. bam raase itam fekk donga yi kereewaat beneen groupe muy groupe bi nga xam ne sëñ beeg leen doon tudd léegi ci appel bi muy ay donga yu mag yoo xam ne am na ñoo xam ne sëñ Mbay leen yoroon am na ci ñoo xamante ni sëñ Nooru laa leen yoroon am na ci ñoo ne sëñ Yaaram Touré moo leen am ci ñoo xam ne sëñ Bàcca leen yoroon ak magi daara ji am ci ñoo xam ne sëñ Moussa Guèye leen yoroon sax ñu mel ne sëñ Mor Mbaye Tali am ci ñoo xam ne sëñ Malick Dieng leen yoroon yu mag yooyu ñoom itam créé beneen groupe fekk na beneen groupe nekkoon fi ndaw ñi ñu ñu ñuy gunge sëñ bi ci liggéey bi waaye tewut sëñ bi fi mu nekk nii kuule na de première étage ba noppi euh, xam naa ni nga ko waxee danañ ko visiter loolu bokk na ci yi gën a yaatu ci yi nga xam ne sëriñ bi daf koo liggéey euh, boole kook nag njabootu sëñ Mor yi muy sëtam yi nga xam ne ñi ngi fi nekk di ko jàppale ci liggéey boobu ndax liggéeyu daara buñ koy wax mooy jàngale sëñ Muntaxa mi ngi fi nekk. magal leen di leen taxaw bu baax moom sëñ du di dem di jàngi dari kamin jukki maam Ndiasse bi nga xam ne moo daan jaar ci sëñ Mor ba sëñ Bas da yoroon ko bàyyee woon ko sëñ Blaat jukki boobu sëñ Muntaxa mii la ko baayam teg ci loxoom muy sëñ Blaat sëñ taxaa di ko def defin wu rafet waxtu wu nekk mu ngi dem dari di jàngi jukki boobu di jàngale xam-xam ak alxuraan naka noonu rakkam yi di doomi sëñ sëñ Bas yi itam ñi ci gën a doon ndaw itam muy sëñ mataar ak sëñ Abdu ñi ngi ci biir daara ji di jàngale seen yitte yëpp ñu def ko xam ne loolu mooy ndono li leen seen maam loola ñu ngi koy dundal bu baax kon nag euh, sëñ Ibra ci biir plateau bi kon dañ ciy profité fàttaliwaat mbokki taalibe yëpp nu jaajuwaat. xam ne sëñ Blaat liggéey bi des na lu bari euh, kaasu escalier yi ci kaw des na war nañu cee def ay buntu war nañ koo karole loolu moo ci des coulage bi moom àgg na muy ci ci première étage bi sëriñ baa ngi ciy soññaat donga yëpp. di ci soññ itam waa njaarim yi fi nekk doon ay kilifa nekk fi te suñ borom jox leen wërsëg woo xam ne war nañ cee mën a def moom day soo ñëwut ci kërug boppam gum tabax gum dëkk soo ñëwut ci oto bum ut waaye day soññe ci liggéeyub alxuraan ak soññe ci daara ji kon mi mi ngi koy fàttali ñëpp di wax ne liggéey boobu mi ngi ci kanamam kër gi itam lépp am na pas-pasu yeesal ko incha allahu taala sëñ bi wax na ne am na pas-pasu yeesal lépp kër gi wax na ne liggéey bii ci kaw bu noppee dana duggaat ci biir kër gi nga xam ne fi la soxna yi féete bâtiment yëpp mu yeesalaat ko defaraat ko kon noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko wéral ko ba mu mën a mottuli yéeneem yooyu kon foofu laa mën a taxawagun ci sa laaj bi yéen dem di sant nag bu baax sëñ Aliou sëñ Aliou Thioune noo ngi jël can ay cantam yaag sëñ Fallou Galass la di ko teg ci seeni loxo Baye Mbaye mii day wax ne sëñ Aliou de mosunoo rëddal dara euh, sëñ Blad ne sëñ de saa su ko soxlaa waxtu wu nekk bis bi moo fiy jiitu moo fiy mucc bu màggal gi jote yi nii la ñuy ñëwee jël lépp moom ci boppam mu déplacé wu ànd ak jarbaatam bu baax boobu jëwrinam jooju sëñ Ibrahima Gueye ñu ñëw toog ci tànt bi xam ne ñoom ci njaboot gi lañ njabootuk sëñ Moor lañ bis bi seen bis la kon sëñ bi mi ngi yëkkati ay cantam ak i ñaanam di ko jaarale ci yow. ak sëñ Fallou Galassine la ngeen jottalil ko sëñ Aliou euh, ak mboolem waa Lamp Fall ñëpp nag ndax Lamp Fall moom. Euh, euh, euh, yëfi sëñ may Mbaye Sylla ab teleem la moo tax sëriñ bi itam nanguwut benn annonce boo xam ne mi ngi am ci màggal gi te Lamfal njëkkewu ko ndax nee na Cheikh Ibra mooy bunt bi ku jaarut ci moom doo dem kon nag faawu moo koy ubbi bu ko ubbee ba noppi nag léegi bu boobaa nag tele yi ci yeneen yi ci des yëpp man cee topp kon noo ngi sant bu baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. appel bi nga xam ni sëñ Mor def na ko mu jëmaat ci daara ji rek ak ci liggéey bu rafet bi nga xam ne sëñ Blaat si semi tey nekk sëñ Mor Mboye Cissé mi ngi koy def te it li sëñ Mountakha waxoon bu mu laal suuf euh, moom du moom dara du laal suuf ci moom. ku fi ku fi ñëwoon bu bu eh, daaw daaw ji ak ñëw fi tey da nga xam ne mu ngi liggéeyal yàlla ak alxuraan tey nag ku nekkal yàlla yàlla nekkal la sëñ moor xam naa ne sa kàddu yu mujj rek eh, nga seet loolu ban ban lan nga mën a indi sëñ Mor Mbaye Cissé loo xam ne daan ci mën a jariñu yóbbaale ko bu léegi mu doon suñu rek ak suñu référence. waaw moom day li ma leen di waxaat ci seen biir wax rek laa koy waat ci ni meloon ci doomu aadama. mas am ku ñëw fii siyaare sëñ moor ba noppi di sikkal njàngam tubaab ne ko yow de sëñ bi siisee bu ñëpp defoon na yow mu baax waaye doomi araam yi noonu la ko waxee jël seen doom yi jox leen ñuy jàng tubaab buñ dee sawara lañ jëm ndax tubaab ku ko jàng sawara nga jëm di sikkal njàngum tubaab lu ne mu di ko ci wax sëñ moor na ci yàlla rek wuyu ko ba mu ba mu tàggoo nag léegi bëgg a dem sëñ Mor ne ko ah man de xaalis bii ma la bëggoon a jox addiya kii ma ko jox daa jàng tubaab gis nga ko sax yëre tubaab la sol ngoogu jóge fi léegi di dem te yow ba nga ñëwee ba tey da ngay xas tubaab yi moo tax du ma la ci mën a jox addiya ndax ñoom nga doon xas kon du la ci mën a jox addiya góor ga ne ko ah siisa dama doon kàcce rek dama doon kàcce rek li ma doon wax dara du ci dëgg sëñ Mor ne ko yow ak ñu demee ni yéen yéen a tas adduna yow ak ñu demee ni yéen yéen a tas adduna daal di ne ko ne ma mbay ma ne mbakke mu ne ma taalal làmp boobu bureau la ma defaloon ma jàkkaarlook moom mu defal ma làmp weex buy gudd nii ma geesu bës kontaak bi làmp bi tàkk. mu ne ko waliyu bu defar làmp bi ndax waa Touba ko defar wala waa Tiwaawoon déedéet mu ne ko ah ña ko defar jaruñoo xas ña ko defar jëruñoo xas. ne ko xaalis bii ma la bëggoon a jox mooli wuñ ko Touba mooli wuñ ko Tiwaawoon te mooy dimbale waa Touba di dimbale waa Tiwaawoon kon ña ko liggéey jëruñoo xas. ne ko nit ku nekk jàppe ko ne ab gàtt ab gàtt ab gàtt lu mu duuf duuf am na sébrit ak yàq waaye mën ngaa jëfandikoo ndawal ga la nga soxla te doo laal yàq ya waxuma sébrit sax ne ko ku ne waxal lam baax le la ca des sa yoon nekku ca nit ku ne waxal lam baax le la ca des sa yoon nekku tubaab yii soo ne ñu nangoo sonn lañ wax nga dëgg te loolu suñ diine sant nañu ko soo ne ñu néewi nelaw lañu wax nga dëgg te loolu suñ diine sant nañu ko soo ne ñu ñu ñu ñu fonk kilifa lañu wax nga dëgg te loolu suñ diine sant nañu ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi ñuy def te suñ diine sant nu ko bari na <coughs> kon mën ngaa wax ci yooyu ne ko garab yi ñoo koy jëmbat waaye doo leen fekk ñu dajaloo ci ker garab di fa waxtaan ndax liggéey rek amuñu jotam kon nit ku ne seetal lam baax la nga di ko wax la ca des sa yoon nekku ca sëñ Mor moom foofu la nekkoon nanguwuloo ne dégg ayib yi kenn. ayib moom soo bëggee jubóog sëñ Mor bul wax ayib kenn soxla wala dégg ayib mas naa am fii ku ko ñëw ne ko ma wax la eh, ci ci ci ci ci njëriñ ma wax la ñoo xam ne eh, dañ leen wa dañ leen daan wattandi ko sëñ Mor ne ko jërumaa wax de ndax soo ko waxee da ca bàyyi koo xam ne sa baay lay doon waa sa jaay kon jërumaa wax. moom fa mu nekkoon daa sori sëñ Mor fa mu nekkoon daa sori lool ku sore sore sore sore sori la noonu la meloon ci doomu aadama yi waaye xeeti liggéey itam noonu la ci meloon ku fonkoon liggéey la ku ko daan santaane itam la ku ci jàpp da nga ko nuyu mu ne la liggéey bi nga yor nga xaye yaa koy liggéey moomal ko sa bopp buñ la jox la di la fay weer lu mën a xew liggéey bi daan na gënal juróom ñii nga ne ko juróom mu ne waaw ne la mangal sa baaraam mu ne la liggéey bi ne gënal sa jëmmi bopp nga ne ko waaw mu liggéey bi ne gënal sa soxna nga ne waaw mu ne ne gënal sa doom nga ne waaw mu ne ne la gënal sa wayjur nga ne ah mu ne neel waaw nga ne waaw mu ne ne la gënal sa sëriñ nga ne ah mu neel waaw mu ne ku ne juróom ñii la gën a jege waaye liggéey bi ne la gënal juróom ñii liggéey bi nga yor la gënal juróom ñii ne li ngay defaral sa bopp ba mën a jaxasoog nit ñi foo koy jële ci liggéey bi li ngay jox soxna si ba mën a nekk ak yow fu muy jógee ci liggéey bi doom ji li ko mën a taxawoo fu muy jógee ci liggéey bi li ngay jox jur yi bañ am seen ngërëm fu muy jógee ci liggéey bi li ngay jox sëriñ bi addiya ba am ngërëmam fu muy jógee ci liggéey bi mu ne kon nag ku ci bëgg a yàqal liggéey bi lànkal mas na la ko wax mu ngoog daal dina man ci liggéey laa jébbulu ci liggéey laa jébbulu da daan déglu lii eh, sama doom ji wax léegi da daan déglu rajo ñiy football ak ñiy làmb lépp sëñ Mor da koy déglu du fay la rajo masta xëy bésub dibéer bésub dibéer la maa ngi koy fàttaliku ci la labbe yi daan def seen way yooyu. dix ak may diski xaw ma ñu ngi koy def ba teyam déet waaw léegi nag ñu tàmbali ko ma dem fay rajo bi mun naa ah, ku fay rajo bi ma ne ko maa ko maa ko fay de. mu ne ndax lan ma ne ko àllab yi dañooy wax rek seen gi mu ne ma ataalal man dañ may dimbale rek làbb yi dañ may yokk man ndax seen sëriñ boobu ñuy woote bañ ko gëjee gis ak léegi mat na junniy at man saab sëriñ bi mu demee léegi ma tëggul téeméeri at kon gannaaw ñooy gëm ma léegi si ñuy gëm kon man dañ may feddali sama gëm ma war a gën a gëm xoolal kooku fa mu gisee <coughs> fa mu gisee daa sori làmb yi liy déglu rajo bi. làmb ji ne a ah, yoon wi làmb la te bëgguma ku ma daan football bi da koy déglu ne yoon wi dañuy football bëgguma damaa bëgg a dugal bii waaw moom lenn lu ne baatin la cay gis xoolut saayir sax am na ca njariñ loo xam ne ca lay am moom ca lay ca lay am waaye nag mag ñi foofu lañ nekkoon bisu dibéer nii ma ko waxee Baye Fallou fii la ne woon moroomum sëñ Mor moog sëñ Mor ñoo daan ànd di fori ga tax ca àll ba ak di taxaani wax na ma ne ma saa yuñ saa ànd dem ca àll ba maag sëñ moor di fore ga tax wala nuy tax ne buñ génnee ba dem ca àll bi dafa ma naan fëllu ma ne ko mbàkke mu ne ma du ma waxtaan de del tari alxuraan may tari xasida bay fëllu na ma maag sëñ moor dana nekk ci àll bi mel ne ñaar ñu kenn du tudd sa morom mi ngi tari alxuraan maa ngi tari xasida ba boobu nuy ba ba nuy ñibbi si waat ku doy ku teel a doy waar la ku teel a yéeme la amuloon jot ci lenn ak ci ñenn kon noo ngi sant ñëpp di woote ci bisam boobu ci ñëpp ci saayir ak ci baatin bàyyi wunu kenn bàyyi wunu fenn bàyyi wunu ñenn sëñ Mor moom moroom àddina jëpp la kon noo ngi woo àddina jëpp ci bis boobu ku fi ñëw yàlla sun borom faj say aajo ndax fii biir bés béréb bu faj aajo la noon na woon koo xam ne ñaan na yàlla ci barkib sëñ Tuubaa koo xaye sa aajo ndër da faju doo mën a ñëw fii di ko ko wax ba yàlla nangul ko ko may ko ko kon nag kër ak faj aajo la man sax sama kër gee moom ma jëndal waxoon na euh, kii mbay kii Jóob moomu ne ko dem nga ci kër mbay ngiraan nga mu ne ko déedéet mu ne ko lu rafet amagu fa waaye ko fa tàbbi sa aajo faju waaw ah, nekk sama kër la def loolee nag sàkkaa këram gii asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Eh, jërëjëf jërëjëf sëriñ mbay ngiraan ci jataay bu rëy bi ñu am muy spécial sëriñ Mor Mbaye Cissé ñi seqoon ko sëriñ mbay ngiraan ak sëriñ Cheikh Gaye ak sëñ Mor ngiran ci teewaay nag euh, xalifaam bi toog sëñ Lahat Cissé euh, di fàttali ñëpp rek ne daar jaa ngi fi tuwaar kala te euh, yàlla lu mu na a àggale du ko tàmbale. te gis tey bu fi tàbbee day da ngay xam ni sëñ moor Mbaye Cissé jóge fi kon ñu ngi jox ñëpp rendez-vous nag le 31 décembre. di àjjuma fii ci kër gu makka kër sëñ Mor mu ci daara ji ku alxuraan ñor daal mbaa nga bëgg ko mbaa nga seqoon moom wëllëre mbaa ak njabootam rawatina nga dëkk njaareem wala sax nga nekk ba bitim réew di seetaan bis baa ngi noonu ñu ngi ciy bàyyi ñëpp xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh